di ko ñaanal mbooleem njabootu Cheikhul Xadim gi ak mbooleem kilifa diine yi di ñaanal Cheikh Abdou Latif mi nga xam ne moo nekk ci bopp njabootu maam Cheikh Isa yàlla sunu boroom yàggal ko te wéral ko ba mu mottali ay naalam ak mbooleem njabootu maam Cheikh Isa Diène gi yépp di nuyu kuréel bii nga xam ne ñoo àndandoo di taxawal bis bii di bisub Cheikh Issa Diène nuy jaarale nuyoo bi ci jawriñ ji sëriñ Cheikh ak ñi mu bokkal jamaa bi yépp noo ngi leen di nuyu noo ngi leen di ziyaara bu baax nuyu kilifa yu baax yi nga xam ne ñoom lañu feggool mën nañoo tàmbalee ci Serigne Modou Mbakke moom Serigne Abdul Wadud jël nuyoo njabootu Cheikh Sidi Muxtaar maam Cheikh Anta Gaawaan ak Sëriñ Afiya teg ko ci loxoom ak mbooleem njabootu Sëriñ Tuubaa gi fi nekk yépp noo ngi jël seen nuyoo di ko teg ci loxoom di nuyu Sëriñ seex Jann moom it di jël nuyoo yu sell di teg ci loxoom ak Sëriñ siidi ñaan yàlla sunu boroom mu yàggal leen noo ngi sant yàlla borom bi subhaanahu wa taala mi nga xam ne moonu defalaat féex ak ndimbal ba ñu fekkewaat bis bi nga xam ne waa jamaaya bi baaxoo nañu ko taxawal muy journée culturelle boo xam ne Cheikh Issa jenn lañ koy defal mu mel ni ren dañoo tànnoon ab tomb boo xam ne dafay jëm ci jàmm ni nga xam ne ni la ko Cheikh Ahmadou Bamba jàngalee te mu nekk loo xam ne day gën a wone rek taxawaay bi nga xam ne mbooloo mi am nañ ko ci don walla sàmm ndono li nga xam ne moom la fi Cheikh Issa jenn bàyyi te xam ngeen ne ku ko tudd tudd xam-xam tudd liggéey tudd jaamu yàlla tudd mboolem jëf yu baax yi moo tax at mu jot dañuy jël benn mawdon boo xam ne moom lañuy ñuy waxtaane daaw gis ngeen ne tërbiye lañu defoon ku ne gis li sëñ bi jàngale tërbiya waaye taxawaay bi Cheikh Issa Diène amoon ren jii ñu jël jàmm ak ne ko sëriñ bi jàngale te xam ne dafay mel ni jot na ci waxtu wu nekk waaye nag ñëw na ci waxtoom te mooy loo xam ne sëriñ bi nee na amul lu ko gën ci àdduna amul lu ko gën ëllëg muy jàmm te mooy loo xam ne it boroom xam-xam yi dañuy wax ne jàmm ak sécurité akuk dal ak développement mën la am mukk ci ab société bu fekkee dunduñu jàmm bu fekkee dañuy dund xëccoo wala ñuy dund ŋiiroo wala xeex wala ñuy reyante wala ñuy tàggalikoo mënuñoo dund ci société bu jag boo xam ne dafay dal waaye mënuñoo dund ci société boo xam ne dafay ànd ak sécurité waaye mënuñoo demit ci développement ndax lu tax mooy nit ki mënul am yooyu yëpp te amul jikko ju baax te jikko ju baax moo ëmb yooyu yëpp te jàmm ci jikko ju sell lay lay delli ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa mas a yi ne leen ndax duma leen tegtal jëf joo xam ne boo leen ko defee da ngeen dem àjjana saxaaba yi ne ko akay ah, mu ne na ngeen bëggante daal na boo leen bëggee bëggante nag na ngeen wasaare jàmm seen biir kon day mel ni bokk na ci liy taxa dem àjjana mooy bëggante te lay sababu bëggante mooy wasaare jàmm ci biir mooy loo xam ne it kon euh, sunu borom daf ko fonk lool bëgg ko ba gis nga li mu doxante diggante jullit ñi sax ci saafaxante bi nuyoo mooy kenn ku nekk ñaanal mbokkam jàmm ñaamal moroomam jàmm mu delloo la jàmm ja yu ànd ak yërmande borom bi subhaanahu wa taala ak barkeem loolu kon li muy tegtale rek mooy Euh, nit ki mënta egg ca raayeb la muy wut moo xam ci àdduna la wala muy ci ëllëg te du fekk ne dafa ànd ak jàmm te loola kon la koy gunge di ko wommat mooy jikko ju baax ju mat moo tax gis nga ki yàlla yónni muy yonent bi alayhi salaatu salaam nga xam ne moom la suñ borom wax ne walakum fi rasulillahi uswatun xasana mooy seen royteef te lu mu leen indi la ngeen ko jàpp wa ma aatakum rasulu fa xudu wa ma nahakum anhu fantahu yonente boobu alayhi salaatu wasalaam nga ci jikkoom ju baax ak lewetam ak ame tasaamox muy tolérance looloo ko mayoon suñu borom ba mu koy kañ dane ko yow kat danga lamboo lewet goo xam ne moo tax nit ñi di la wër wet gu nekk waaye bu fekkoon nekk nga ku naqari deret nekk koo xam ne dafa dafay triste waxtu wu nekk nekk ku ñëggal kanamam nit ñi duñ la wër ba jege la kon jikko ju rafet jooju mooy waral nit ñi ngeme la ba mën a jëm si ci yow mooy jën indi jàmm jooju fa bi ma rahmatin min allah linta lahum walaw kunta fazzan xalisal xalbi lam faddu min xawlik loolu kon day jàngale it melokaan wu mat woo xam ne moom la borom bi di wax waaye lam ko ci tegalit mooy kon bu fekkoon ne jikko ju mel noonu nekkul ci yow melokaan wu baax woowu newul ci yow ni la nit ñiy jegee di la fréquenté du am yonent bi it sallallahu yaa ayuha nnaas afsu salaam wa at'imu taam wa sillu arham wa sallu wa naasu niyaam tadxuluuna janna bisalaam salaahu salaam nee na yéen nit ñi nangeen ngeen wasaare jàmm ci seen biir waaye da jokk ak bokk na ngeen leele aw ñam na ngeen di julli guddi fekk nit ñi dañuy nelaw da ngeen tabbi àjjana kon day mel ni bunt la yoo xam ne la muy jàpp na la jàmm bi mooy luy tax mu mën a am yeweenug àdduna ci li muy wut waaye am yëwénug la muy wut ëllëg di yowmal xiyaam mu mel ni it dafay am yuy indi jàmm yoo xam ne ni ko sëñ Tuubaa jàngalee ak yoo xam ne safaanam dafay tax jàmm du am gis nga ne bari na lu ñu dund bu dee ci suñu euh, réew mi li ko féetewoo bu fekkee amuñu lu ñu tuddee rek lenn ci taasub te moo di parparloo moo xam taasub lay doon boo xam ne a turuq yi lay nekk benn nit ñi di euh, parparloo ci ay tarixa wala ba ci ay politique wala ba ci ay gëm-gëm lu ci nekk bu ca loo amee nga xam ne tegeetul ci mbirum logique ci mbirum yàlla dafay jur loo xam ne mën naa bijji safaanub jàmm ba ca toppit mooy ñàkk a nungul koo wuuteel mbir moo xam ngeen wuute tariixa boo leen nekk wala ngeen wuute parti boo leen nekk wala ngeen wuute déggin ci dara ba ci sax masala nit ñi tolloowun ay dimension ci xam-xam waaye ki nga ci wuuteel aw déggi nit du jur ak noono du jur ak bañante waaye ak wuute ak wuute mën na caa nekk moo tax ñuy tere sax dingat bu bari nga xam ne dañuy wax ne nit ki bu baree lu muy inkaar ñaar da cay daje mooy gàtt xam-xam ak ñàkk xam mbirum yàlla ndax yàlla mane na nu ne sañe na nu ne surtout sax bu dee ci tasawuf ñi nga xam ne dañuy bot di tasawuf di bot di ñooñ tariixa umpale gi ni umpale sañ-sañu yàlla ci mën a defal nit la ko soob ñoom ngay dégg ñu jàppe ñi ay bokkaalekat lañ ay ñuy weddi yàlla lañ fekk na xamuñu sax lëggu mbir ma dëgg doxuñu ca leen nañ it dëgg-dëgg borom bi moo tax ko ñoom imaamu Shafii day wax ne euh, njëlbeenu euh, nifaax ak shirk mooy weddi ndax adabu tasdiix la te ñoom duñ jàpp ne loolu sax mën naa nekk moo tax lu ñu ump rek nit ki du def lu mu xamul rek ne baaxul fi ne loolu day am ba ci biir yoon wi sax fi ne am na ko xam lu mu waxut wérut lu mu déggut wérut wala sax lu kogam waxut wérut wala fa mu bokk lu ñu waxut wérut fekk demeewul noonu ndax sëñ Tuba léegi sax nga dem sax ba ñu wutal ngant ne wutal ne sëñ bi sax daawul wax ak nit ñi déedéet déedéet sëñ Touba da daan wax ak nit ñi ndax la mu wax sëñ Afiya la mu wax maam seexanta Anta la wax sëñ Issa Dieng kenn ku nekk dafa wax yow sëñ bi jotug adduna la waaye jotug defar am na ko ñoom taxawoon woon sëñ Touba na seen jot amoon na seen jot na bu amutoon seen jot Cheikh Issa Dieng du mel nii ba amutoon seen jot maam Thierno du mel ni mel maam Cheikh Anta Gawane du mel ni mel kon yàlla la yitte woo ndax dafa wax dafa bokk ci yitteel sëñ Touba mooy fexe ba mbiri nit ñi jàkk ndax moo waxal boppam ne chagalat ni ibadatu rabbil alamin wa tilawatu kitabu rabbil alamin wa tibaa sunnati xayril alamin wal ijtihaad fi masaalihi al alamin maanaam luy tax mbirum nit ñi jag daa doonoon nitee Sëriñ Tuubaa nee na walis nag may gestu bon bon yi nit ñi maanaam lu ñaaw la Sëriñ Tuubaa amutoon jotam waaye luy tax nit a jag nit a baax Sëriñ Tuubaa ca la nekkoon moo tax daana bind daana tomb daana waare guddi suuf daana sedd guyu mu jóg di wër te mag ñi waxtu wu nekk li Sëriñ Abdou Lahad waxoon ne nelawe guddi ginnaaw Sëriñ Tuubaa la waaye waxtu jamono yu mu fiy nekk kenn tëlutoon a nelaw kon daana gisanteeg ñoom lam daan bëgg ñu koy def ak ñu koy taxawee kon loolu it wuute ga warul tax nga dàq ca meleen ndax melum sëñ bi du lu sa gis yi bopp li may wax ne lañ ne diine dañ ko teg ci ay usus ko ci ay mabadi principe yu wóor mbirum sëñ noonu la du ni ma ko sentiré xam fi ne kenn ku ne da nga yor sa laay fu bopp rek toog na man bàmba ji ni ma koy dundee wala ni ma ko ni ma ko yëgee déedéet du ni nga koy yëgee du ni koy dundee ni ko sëñ bi waxee la ni ko sëñ bi waxee moo moo wér te waxi sëñ bi nag moo gën a wér waxi keneen ci analise boo ca mën a am rek waxi sëñ bee gën a wér ni alxuraan mel addis mel ni noonu la waxi sëñ bi taxawee alxuraan bu ñëwee amatul beneen gisin bu ca nekk waxi yonent bi salaahu salaam noonu la mel amul commentaire waxi Sëriñ Tuubaa it noonu la mooy gëm ak jëfe ak jariñoo mooy waxi euh, Cheikhul Khadim noonu la mel noonu la nit ki war a dégg nag bu baax a baax moo tax ñi sëñ Tuubaa jox lii nu yor sëñ bee leen ko jox sëñ bee leen ko jox loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax kon taxasub yooyu Euh, muy par yu dafay jur lu bari fi ne ba ci suñ biir nii man sindi di lay jàng yow wakkaana ngay jàng doxoo kii fawseyni lay jàng kii toxfatu lay jàng doxoo kenn ku ci sëñ bi wax ne kii jàng toxfatoo dox bàyyi kiy jàng fawseyni amul ndax am na yow yaa ngi jàng toxfati dox am na koo xam ne benn wa dam mi ren ci lay régler problème am kenn benn aspect tuuri ci lay régler problème am na kooku sax yëggul foofa barke borom Tuubaa lay wax gëm ko li mu bëgg aajoom di faju ko sëñ bi yaatoo noonu buñ canaliser sëñ bi rek ci benn benn benn benn béréb léegi-léegi sax nga dégg sëñ bi lu mu def da koo bind Cheikh Ibrahima Fall bul julli dul woor fu ko sëñ bind te boo ko weddee ñu fudd sa ndigg ci àdduna boo ko weddee ñu fudd sa ndigg yomal xiyaam ni Cheikh Issa Dieng mel nii tey mbooloo topp ko bu doon téere bu ñuy joxe la ku ne wut ko seen pénc amul lu ñu relevé par at Cheikhu sëñ diw sëñ diwa toog yóbbaale ko amul sëñ Tuubaa kum benn contact la taali àdduna bépp muy jërëjëf jërëjëf la wax Cheikh Issa moom la wax Cheikh Mandoumbe moom la wax maam Thierno moom la wax ku ne te jërëjëf Serigne Touba jooju la mujj ci ko wax bu fi bantub di leen te kenn mënu ko yeesalaat kenn mënu ko dindi kon loolu mat naa bàyyi xel ci mbirum sëñ Touba moo tax euh, moom du sanc du tuxu du taadi ngees sëñ bi moom bu nuy warees naa jàng ci moom lu mel noonu wax naa ko ba ci nit yi adduna yi ma ne leen kuy jàng politique jàngal ni sëñ Touba ànde woon ak ñi àndal xam nga nit mën nga ànd ak moom am njariñ sédd ko leneen ba yàgg nga nungu njariñ la jox ko lor sëñ Touba nag li am ci yàlla la sédd ñim yor fi na tan nii mu ne sito weesu diw mu ne mbakke ami tool yori donga ñu di lëggeel mu ne sito weesu diw mu ne jenn diw mu ne Mbakke diw mu ne Fall diw mu ne nangam nga xam ne li am ci yàlla la jox ñi mu àndal loolu mooy ànd goro moom la Serigne Touba def ñi àndal ñëpp li am ci yàlla la leen jox te ñooña melokaan woowu tax tey jii doo gis benn loo sëñ bi da cee parparloo ci nangam wala mu doxin ko moo tax attan suuf bokk na ci li nga xam day indi ak ñàkk indi melokaanu mat sëriñ bi nag moom ni mu dundee jàmm da ko feeñal ci biir ay waxam feeñal ko ci biir ay defam nga xam ngeen ne dëkk bi mu njëkk a sanc ci li mu ko delloo rek mooy daaru salaam wajal salaamatan taduumu yaa salaam nam ca ñaan boroomam li wali yàlla fi daari salaam wajjih liya salaama fi daari salaam wa kullu ma ashaa'u minka yaa salaam ñaan boroomam euh, jàmm ca dëkk boobu mu jëkk sañ muy daaru salaam gis nga it ne dëkk bi ci topp mu sañcaat ko muy tuubaa gis nga lam ci ñaan boroomam nga xam ne day ñaan jàmm ju fa sax waaye ñaan sax ab kàccoor boo xam ne mën naa indi safaanub jàmm yàlla muccal ko ci dëkkam mboobu di Touba wa maskini salli min al fujaari wam nun ala ahli bi ma in jaari li tax it nga xam ne mbirum sëñ Touba lu yéeme la fi ne wam nun ala ahli bi ma in jaar sëñ bi lu mu wax rek la sëñ Modou Soufané woon leen gisagul leen gën a gëm fi ne bi muy wax mag ñi ci am ne leen am ci ñu jóge woon Touba di ko yëgal si manque ñàkk ndoxum Touba tam naan leen bisa ngi ñëw ca seen wuntu kër yee ca la ndox yooyu wal sëñ Omar Anta Ngunda xam naa ko ko tudd xam sëñ Omar Anta relation bi mu am ndax defe naa Cheikh Issa bi sëñ Tuubaa di yónnee di woolu Cheikh Issa ci ba mu koy bàyyi loolu mu ko doon bay sëñ Omar Anta Ngoune la yabaloon fi ne sëñ Anta Omar Anta moomu la sëñ Tuubaa woon bis dana ñëw seen ndox yi ndox yi dëkkum Touba ci seen tànk buntu kër yi lay wal fi ne tuyau central tuyau central bu Touba boobu ci buntu kër sëñ Omar Anta Ngoune la jaar waxuma jëmmi ndox mi wal Touba waaye ki ko sëñ bi seeree loon sax te këram a ngi ci wetu pharmacie Cheikh Abdoul Ahad bi nga xam ne ci ginnaaw kër kër mag moom teewa central boobu fi jaar ci buntu këram la jaar ngeen waxi sëñ Tuubaa ni muy saxee waxuma dem ba ndox mi wala ngaan waaye ku ko sëñ bi waxoon sax teewa central buntu këram la jaar moo tax sëñ Tuubaa lu ñuy gëm la lu ñuy wóolu la bañ cee complexe bañ cee dellu ginnaaw bu ko defee lii ñëw faaw day ñëw waxtu nekk bu ci këlkin desee rek mu bàyyi la sam xel ma waral seeni seeni occasion loolu dara jaru ko ci kon loolu da koy ñaan boroomam ci melokaan wu mat woo nga xam ne moom lay doxee bokk na ci it li nga xam ne sëñ bi daf koy Euh, jàngale ci waxtu nekk mooy mu wane ne ba muy ñaan boroomam dëkkub jàmm dëkkub jub dëkkub xam-xam dal di wax na it euh, li tax ñaari dëkk yooyu muy Touba ak Darou Salaam gënal ko ci dëkk yi gënal ko ci dëkk yi sëñ Touba moo ko wax boo demee ci duwaawul kabir nee na ina sababi fi kawnihuma ahabu ilay ma siwahuma li tax Touba ak Darou Salaam gënal ma ci dëkk yépp xuluusu niyati fi mooy sama sellug yéene ca dëkk boobu di Touba ak Darou Salaam daan ndax bi ma koy sanc sëncuma ko ngir yaxantu sëncuma ko ngir sàmm sëncuma ko ngir bay dama koo sanc ngir jaamu yàlla ak tànn gu ma ko yàlla tànnal nee na loolu tax ñaari dëkk yooyu gënal ma ci dëkk yëpp kon wax na tax mu sanc dëkk yooyu bi ko yàlla tànnale ba noppi it cosaanu li taxoon mu sanc ko nee na kon loolu rek moom fa yóbbu woon mooy jaamu yàlla am ci nag an idni minhu taala waxtiyaar ndigalul yàlla ak tànneefug yàlla ci ameen bokk na ci loolu it manhaju silmi bi nga xam ne te mooy méthode bi sëñ Tuubaa jëloon bi muy jàmmaarloo ki noonam ba mën a doxee jàmm ñu koy wax na mën nañ ko wax ak jihaadu te xam ne ne jihaadu force mënoon na ko def jël ay gànnaay waaye dafa delluwaat ci jihaad boo xam ne non violence la fi ne bu ñuy set ki gën a mën a dund jàmm mooy Sëriñ Tuubaa benn ñu tooñ la kon sañ nga fayu fayuwul ñu tooñ la nga am gànnaay mën a jëfandikoo jëfandikoo ba noppi yëmuloo ci nag nga baal leen nag définitivement nga xam ne beneen intere tuppatu ca ba loo leen naan ba jamono soppi ko déedéet afawtu anil abai turran dafa xam ne ba faw ba faw te kon àdduna gis nga fi mu toll mënoon nañ ci doxe yeneen waaye loolu sëñ bi jàngale gis nga bi muy wone it euh, ci xasidaam gi tudd ilhamu salaam fi dabbi en diinil islaam wone nit ñi doxin wi ñu doon dox bu njëkk bi ñuy jihaat ak nasaraan bi ak fi àdduna tolloon ni ñooñ àdduna fëxe te léegi àdduna sax andi ko maanaam dafay mel ni actualité la ñëw na ci mu ne ñenn ñi yahuud yi majuus yi ak nasaraan yi nga xam ne dañoo nekk euh, nit ñu gëlëm nga xam ne ku leen di topp dangay nekk nekk prisonnier boo xam ne doo xam fooy jëm ba sax ñu mujj mel ni ñu man di gëlëm ci seeni xalaat ba ñenn ñi seeni jëf mujj jëm ci ak suufee nga xam ne guddi ak bëccëg ci luy mer luy bijj merum yàlla ca la xëy seen mag ña du war mal ndaw ña seen ndaw ñi duñu seen mag ñi du yërëm ndaw ñi seen ndaw ñi duñu warmal mag ñi ñu sànq seeni waxtu ci jëf joo xam ne day meraloo yàlla nee na ñooñu bokk na ci leneen xañ lañ lañ lañ doon wut ba mënuñu ko am mooy doxit yi ñu doon def kon bokk na ci liy tax jàmm am ndaw warmal mag waaye mag it yërëm ndaw mu ne ñooñe nag da leen a yóbbu ci ay caaxaan bañ jàpp ne sax ñoom boo jëfandikoowunte ak ñoom danga ngaa réer wala amoo li ngay wut waaye ñan ñen doon topp ci lan la leen yóbbu mooy yóbbu leen ci njaaloo ak sàcc ak jëf ju ñaaw joo xam ne day day yàq diine mu ne kon ñooñu ci mbir moom la ñuy la jëm kon nag bi mu ñëwee ngir bëgg a soppi loola nag dafa indi yoon woo xam ne mooy yoon yoon wu mat woo xam ne moom lay jëfandikoo moom mu indi ay gànnaayam bi muy jàmmaarloog ab nasaraan yi ujaahidul kufaar bil ayat wa bil ahadisi bil altifaati sëñ Tuubaa dañuy wax li gën a ñaw ci lim daan yor saatu la saatu kon mës a jëfandikoo genn genn genn gànnaay te loolu sax yar gim ci yar mag ñi am na ci ñooñ loolu dafa def jeexintal ci ñoom loolu misaal boo demoon tey ci sëñ Mor Penda Mbakke euh, gis nga bi ko bi bi ko kàccoor yi dogalee ci yoonu gànnaar wi te gaañ ko ci baaraam bokkul ak sëñ Mahmoud Mbegere ba gaañ ko ci loxo bi bi mu ñëwee sëñ bi lu ko sa cër yee may jàmbat ne am na am na lu ci metti mu door ko wax xew-xew bi gis nga sëñ Mahmoud yi bi mu ko defee te sëñ bi laaj ko lu tax gànnaay gi nga yor jëfandikoo woo ko dana ko damaa merut maanaam koo xam ne ay ay xutaan tariix ay agresseur dagale nañ la dogale nañ la xeex ak yow ba dagg sa baaraam nga yor jees yi te jëfandikoo woo sëñ bi na ko lu tax mu ne ko boobu damaa merut kon bokk na ci loolu te loolu euh, tasaamux boobu ñu amoon tolérance boobu ñu amoon sëñ bee ko def ci ñoom sëñ bi moo jëkk ci loolu mooy ujaahidul kufaar bil ayat wa bil ahadisi bil iltifat moo tax boo demee ci yaa jumlatan gis nga arme yi mu wax ne moom moom moom la am nga xam ne ini ujaahidu bi loolu ba bi tuqaa abdal qadiman wal muhaymin saayib say fii la si yufri tulaaman salla su tabxiduhu yoruma jaasi weñ ju may doge doq ko ñetteel yàlla waaye jaasi ji ma yor mooy joo xam ne mooy wetal borom bi madaafiay muy samay kanoog samay gànnaay mooy lan dikru xakimun uxkimat ayatuhu te moo di al alquranu karim ama rimaax yi ay xeejamit gis nga ko la mu wax mooy addis neen leen lu ci nekk ba ci li muy defee ay recherche ci secret yi nga xam ne moom la ñi muy jëfandikoo am loola moo di atasawuf kon moom gànnaay yi mu yor yooyu yëpp ci loolu day jëm mooy wane melakaan woowu bu dee ci tas taasu boo xam ne turux yi lay doon fi ne bu dee ci tariixa bokk gëm-gëm tàggalewuñu ndax fi ne ñii duñ julli jëm penku ñii di jëm sowu ashhadu an laa ilaaha illa anna muhammadur rasulullah noo ko bokk ñoo bokk benn kaamil alif lam mim ba ne jinati wanaas doon ko ne yàlla sédd na ci nit ay gën a dégg yi ne gën a loolu mbirum yàlla aj makk gi ñoo bokk weeru aj wi ñoo bokk weeru koor ñoo bokk limite bi muy doon it kon loolu lépp ñoo ca bokk kon ay intérêt ay intérêt mooy waral ak ko ak it nag par parloo ci xol mooy lenn lu yàlla yemale ci àdduna amul amul fi boo demee ca làmb ja da nga ca gis koo xam ne moom lañ ci tudde miir nangam boo demee ca football ba ña ko bokk da nga ci tudd miir nangam lu ci nekk am na fi ne ba ci bu dee ci tarixa yeeg jàmbaar yi ba ci lislaam ñaata saxaaba toppoon yonente bi dañ caa tànn al asharatu mubashara bil janna fukk yoo xam dañ leen a ciblé ne ñuy àjjana lañ jëm mais ña ca des pourtant danañ dem àjjana mais ñoom gisuñu seen bopp ci lu tax ñu tànn leen ñiy dem ba ci mbirum àdduna yi noonu sëñ Touba yàllaa ko jiital jotewul ak dara leneen maanaam fi ne doon la nga doon ak jiite ka nga jiite jotewul ak Serigne Touba sëñ Touba yow mi ne ci biir lislaam ni ko yàlla def danga koy nungul ne yàlla mu indil fadla bi yedd la yuuti man yasha yàlla la soob muy jël ngëneel jox ku ko neex nga ne maa ngi ci biir arène bi jàmbaar la waaye sëñ Tuubaa nag moo jiitu nga nungu lool waaw kon loolu day mel ni da nga cee gisee ne ak tàggalikoo da cay nekk mooy fexe ba nit ki nga ñàkk a nungu ak jiitoom wala na ko yàlla def moo tax sëriñ Tuubaa yi day wax ne ngir bëgg rek nit ñëpp di bokk fu ñuy tënku ci nungu dogalub yàlla ak nungul ku ne la ko yàlla jox li ñu tuddee acceptation moom la sëriñ Tuubaa am fi ne boo xoolee bu dee wax ci tasawuf da nga gis ñu tudd imaamul junaydi wala mu tudd imaamul ghazali bu dee wax ci fiq gis nga dañuy tudd imaamul awfi gis nga ba muy tudd farate julli furuuduha tuaddu xamsata asar alladi afidul fiqi dakar bu dee tudd euh, mazhab yi mazahib yi day tudd imam maliki imam shafii hanafi hanbali bu dee tudd turuqu suux yi su euh, turuqu suufiya yi day tudd Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani Ahmadu Tijaani waaye day tudd Chazali maanaam loolu li nga ciy déggee mooy señ bi lu waaye baax la nongul na la ko barab fekk na la ca moo tax yëfi boppam yi mu am it yàlla defal defal ko ko it da yow it ngir nga mën a ànd ak moom danga ko koy nongul moo tax fi ne léegi-léegi nga ma ne inamal muminuuna ixwa Sénégal danañ ko di waxtaane jullit yi ay bokk añ léegi léegi sax nga dégg ko jàpp ne waxtaane baaxu Serigne Touba wala mag yi Serigne Touba seenu baax ak tàggale lay jur déedéet maanaam gis nga bëgg ànd ak waa dëkk du tax nga ne sama soxna góor gu ko soxla na tëdd ak yow yàq lakkal yàkkale yàkkale yàkkale ku ne sañ na koo def bu sa njël doyee rek bu la neexee yàkkal bàjjan diw bu la neexee yàkkal yumpaañ diw waaye tëdd jot nga tënju nag ne diw day sama xaritu borom kër wala ñoo bokku dëkk naa dem tëdd ca néegam loolu bokku ci ku ne mën nañ laa jox li nga moom waaye nag sëñ bi moom dafa beru ci lu lu mën a doon loolu mën nga ko xame ci biir ay jëfe moo tax muy wax ne euh, bokk na ci wax naa man Sëriñ Tuubaa xultu fa man yurit salaa al amal fal yarkuran li awliyaa al kumali nee na ku bëgg sa mbir yiwén àdduna ak alaxira na nga jëm ci gaa yu baax yi gis nga Sëñ Tuubaa ci gaa yu baax yi te ne moo ne bu dee wàlli yu màgg yi muy tudd di ko tudd boo seetee ci biir ay gaayam am na ñum loolu wax na ñoom ca wàlli yu mag ya lañ bokk Cheikh Issa Diène ñuy defal bi Cheikh Issa Diène wootewut ab tariixa Cheikh Issa Diène taalibe Sëriñ Tuubaa la Sëñ Tuubaa defar te Cheikh Issa moo waxaloon boppam ne Sëñ Tuubaa daa tàllal loxoom ba mu jeex mu teg ma fa man fa loxo ba yam na ku sutul Sëñ Tuubaa loxo mënoo ma faa ajji loolu la Cheikh wax de Cheikh Issa Dieng nee na sëñ Touba daa tàllal loxoom ba mu sës ba mu jeex fa mu yem mu teg ma fa man Aïssa ku mënta sut sëñ tubaab loxo mënoo maa aji te ku waxuma la sut sëñ Touba loxo waaye ku sa loxo mën a jege loxo sëñ Touba amut kon Cheikh Issa wàcc ba ca toppit Serigne Touba moo waxalaat boppam ne ca góor yàlla yàlla bokkit loolu it sëñ Touba ko seere ba muy gërëm seex Bara jenn taawam bu baax ba murit saadix ba nga xam ne lu bari ay turandoo ngoog te néewi jëm muy diw murit murit la te sëñ Tuubaa ko seeree loon Seex Baara Jeen kere ba mu koy gërëm dane ko yàlla gërëm na la yonent bi gërëm na la gërëm naa la sa baay Isaa jenn gërëm na la te ci góor yàlla yi la bokk te te sëñ tubaa ku muy naw ci lu bari néew na waaye naw na Seex Isaa ba ne ko ci góor yàlla lay bokk moo tax Seex Isaa Jeen daana ne man duma sëriñub gone sëriñu borom yitte laa kon xam nga li ngay xamee ne sëriñu borom yitte laa mooy boo seetloo ñi Cheikh waxuma jëmmi Cheikh Issa waaye beneen contestant bi nga xam ne Cheikh isaa créé waat na ko rek bi ko Sëñ Tuubaa duyelee àndaaram ba noppi ñi Cheikh Issa duyel képp mën nañoo dem ci làmb ji ñuy tudde góor yàlla yi mën nga ca tànn ñu bari tey boo jëloon ku mel ni sëñ ngañ tandine mas naa jox gëléem addiyee sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa na ko sa bi gëléem gi ma jox moom lay war ba ca jànnatu naay mu wàcc ca te kooku taali taali bi Cheikh la bi Cheikh ma Touré taalibe Cheikh Issa Diène la ñeneen taalibe Cheikh Issa Diène la sañ Dame Sourang ñooñ ñëpp tey ñoo tudd kan moo leen defar Cheikh Issa moo tax Cheikh Issa nee na duma ma taali du ma gone sëriñu borom yitte laa sëriñu borom yitte kon ku am yitte ju kawe yaay mën a egg ci dayo bi Cheikh Issa Diène yegg li ngay xamee ni kon booy koy seet ci gaa yu baax yooyu fi muy toll ci jëf mooy lim dajale ci ay ngërëm ci Sëriñ Tuubaa man nga ko ca misaal boroom xam-xam yi mag ñi lañoo nawante woon moo tax ñu mën a nettalante ay yiw kañaan bi mu xewee léegi ngay xam ci nit fi ne yàlla xam ne da ngay gis ku toog di waxtaan xam ne li muy wax Cheikh Issa na wala sëñ Baara jenn wala sëñ Abdou Karim Touré nga ne am na menn mag lank bañ koo wax ndax boo iñaane koo wax ndax naan bu ma ko waxee sëtam bi dégg loolu ak kiñaan dong la mag ñi nag xoolal sëñ Ibrahima Diop almachar yi xoolal sëñ Mouhamadou Lamine Diop ak degen yi kan moo leen ëpp xam ku leen gën a jege sëñ Touba ay siqa sëñ Mor Lamine Diop dagg ne damay wax ne euh, xitaa bii mu dagg rek min wa minhum muridul ma'ruf bi xasil xiyaam bii mu wax jëmee ko ci Cheikh Issa Diène loolu doyoon na ci portale bu ñu la waxoon bu ñu doon def benn micro trottoir man huwa Cheikh Issa Diène bi taarif kan mooy Cheikh Issa Diène boo ko bëggoon xam ci loolu rek doy na ci mooy lan Cheikh Issa Diène bi muy lim ñi doon taxaw ci jumaay Touba ji di wax pas-pas yeeg taxawaay yi nam dane ca murit bu ñu xam ba ci rafetub taxawaay ak kawe yitte Cheikh Issa Diène mi nga xam ne bi mu ñëwee ci sëñ bi te booba fatxe bi ñëwagul ci moom amul benn occasion wala wenn yiw wala jëf ju baax gum gis ci béréb te jëliwul loolu indi ko benn mësu ko raw ci aw yiw wala baax bi ko sëñ bi ubbilee li mu ko ubbil nag mu dem gas ay teen sanc ay njën ni di liggéeyal sëriñ ju baax xidmata siddiqin la wax liggéeyu dëgg nga xam ne Cheikh Issa mësta triger ci liggéeyal Serigne Touba mooy li Serigne Touba waxoon Serigne Bassirou na ko sama juróom-ñaari ati géej gi du réer ndax bi may jaamu yàlla naxuma ko bi may yàllay fay naxuma àdduna du kërug pay waaye mbir mi ëllëg la waaye Cheikh Issa Diène bi muy liggéeyal Serigne Touba liggéey bu dëgg mu ne ko ci ñaata étape mu ne xablal ghayba wa ba'dal ghayb Serigne Mouhamed Lamine Diop ne jëkk géej gi Cheikh Issa liggéeyal na sëñ Touba ba làmboo ay ngërëm bi sëñ bi jógee ci géej gi it liggéeyal na ko ba làmbooy ngërëm mu teg ci ne daa mujj nekk xudwatul jamia nee na ci njëreem moom ki doonoon royuwaayu ñëpp dool delluwaayu ñëpp nee na moo doonoon Cheikh Issa Diène radiyallahu taala anhu loolu kon melokaan la woo xam ne euh, jëf yu rëy ak doxinu mat moo ko may ci digganteem ak Serigne Touba bokk na ci ay xaasit yoo xam ne euh, am na ko ci mooy lan mooy Serigne Touba kim doon moo waxal boppam ne egg na ci këram gi sama kër gi mënatuma fee yëkkate dara ba ci xalima yi may sëpp di binde te néewuma bul fàtte Issa Diène nga xam ne ko lépp mooy seereel taxawaay bi Cheikh Issa am ci kër Serigne Touba. mu di ko seere lal bokk na ci it tey jii looy mën a teg sa loxo boo demee jumaay njaareem bi ci jëkk mooy te loolu sëñ si dinaar jenn wan na ma kayit wa te moo di jëmmi pakk bi jumaa ji nekk Cheikh Issa Jenn moo ko jënd léegi seetlul ñaata rakka lañ fa julli seetlul dabu bëggu Sëriñ Tuubaa ba def ko xoolal lan la jumaay njéeréem di présenté nga xam ne bi mu noppee sëñ Tuubaa dane mooy misbaaxul sama wa najaatu ahlul ard waa suuf làmp bi leen di niital mooy jumaay njéeréem waa as waa waa asamaan lamp bi leen di niital mooy jumaay njéeréem seenug texe mooy jumaay njéeréem waa suuf mooy misbaaxul sama wa najaatu ahlul ard nga xam ne jëmmi pàkk boobu rek moo ko jëndoon ci ñeent fukki dërëm yi ngordu léegi seetaltal na nag kero bi sëñ Tuubaa di jox liggéey bi Cheikh Issa nga xam ne sëñ Siidi naa nee ma sëñ Baara Jenn nettali na ne kero bi suñ Tuubaa di waxtaan ak mag ñi juróom-ñaari sàppe la yoo xam ne Seex Isaa nga ca ginnaaw sëñ Tuubaa càpp ndaay di wax néegam yéen buddi woon wala jàkkaam bantam yéen buddi woon ca maa yomba ba tax mu taalif xasida xasida gii di raditu anil mawla te ba muy ak ci masjid yi Rahba yàlla wan ko jumaay Njaaréem won ko jumaay Tuubaa may ko ko kero bi sëñ Tuubaa di nettali ak guddi gën buddi bant ya tuur ndox gañ fa tuur ndox nga xam ne xol yëpp tooy na ba muy wax loolu daa càpp ndaay ba muy yeggal daal sukk bati mi daal di sa Cheikh Issa nga ci ginnaaw mbooloom mu ne Issa jenn Cheikh Issa wuyu ca ginnaaw mun ne ko yow la yàlla rasul lay wax ne yaay jëw ni liggéey loolu kon wane na ne loolu it yàlla jagleel na Cheikh Issa te loolu doy na ca rek jëf jooju ko Serigne Touba may tam jëf ko ci waaye it boo demee ci Serigne Mbacké Sani yi Serigne Mbacké Sani nijaay Cheikh Abdoul doomi sëriñ bu sóobee la ba muy bind lettre dane maa ngi ko jëmee ci njiitul murit yi maanaam bu dem état la ab président la bu dee ci jàkka la imam ba nee na mooy raïs bi mooy imam nee na Cheikh Issa Diène mooy njiit li mooy Cheikh Issa Diène daal di wax ne mooy koo xam ne ku miin jataayub sëriñ Touba sëñ Mbàkke Seen nee na ku miin jataayub sëriñ Touba dégg nga mu wax ba tayyi ne mu wax ba tayyi ne Issa Diène lu mu wax dëgg la lu mu wax dëgg la daal di cay tegit ne te bu guddi gi kukkee ida janna layil bu guddi gi xóotee te sori sëñ Tuubaa nee na damay taxaw di ñaan yàlla di ñaanal yàlla Cheikh Issa Dieng suñ borom ni mu def Abdul Xaadir Jaylaani ci bali wàllu yu yàlla yi ni ci ràññ ko mu def maqaama def dara darajay Cheikh Issa Dieng ci biir gaa loolu sëñ Mbàkke Seen yi wax wax na lool kon loolu lu muy wane mooy eh, jiitu gi Cheikh Issa Dieng jiitu ak raw gi mu raw Cheikh Ibrahima Diop al-Mashari yi borom xam-xam bu rëy boobu ñàkk ñaan ku ñàkk ki ñaane ngi noonu lim dajale ci xam-xam te ku baax mu wax la ko bu yemoon ci bayit wu jëkk wii rek xaasal mafaaxira isa jenn suu sa wa faasa bi xurbi wa ridwaani bil xadam te moom ban ngërëm la am sëñ Mor jooje nee na xayru ridwaan maanaam gën gi ngërëm ngërëm ya gën a wóor gën a baax sëñ Mor jooje nee na moom la Cheikh Issa jenn am ngërëm ya gën a wóor gën a baax moo tax Cheikh Ibrahima jóob na mboolem sag yi ak tedd nga yi ka ko làmboo mooy Cheikh Issa Dieng borom tedd nga ja waaye làmboo jege Serigne Touba làmboo nekk xaritam waaye di nekk ku ko jege làmboo it ngërëmi Serigne Touba ci waxtu nekk mu ne mooy koo xam ne it mooy soppeeb Serigne Touba mooy làmp aw yoonam nee na képp ku tegtaloo ci Cheikh Issa Diène nee na doo dox ci ak lëndëm moo tax Serigne Saliou Mbacké mu baax ma daana wax ne sama baay Cheikh Issa li ñuy wax tawféex tawféex dafa am tawféex ndax daan dàkk bëggu sëñ bi. nee na daan dàkk bëggu sëñ bi te lu mu dàkk dajeeg muy bëggu sëñ bi nee na loolu loolu la Cheikh Issa Diène amoon dafa amoon feex maanaam Cheikh Issa bu demoon wuti ab kopp ñëw teg ko it day fekk bis boobu sëñ bi di yittewoo ab kopp nga xam ne day dàkk bëggu sëñ bi te lu mu dàkk mu dajeeg bëggu sëriñ bi kon loolu tawfeex la ci amoon joo xam ne suñ borom moo ko moo ko ko jagleel mu ne mooy koo xam ne it ay addiyaam kenn mënu koo lim xalima mënta bind addiyee Cheikh Issa waaye it aw làmmiñ mënu koo tudd ndax addiye ju bari ju tiifoo yoo xam ne waxtu wu nekk mu ngi koy liggéey gis nga bi sëñ bi nekkee ci yéen te fi ne boo demee ci archive nationale ci rapport boobu mu doon def ci 1908 euh, bi euh, rapport boobu bi muy indi ñi loon jóge ay yónnee ak ay jëf yuy fekk Serigne Touba ci Thiène da ci indi Cheikh Issa Diagne ci indi bu am solo te loolu mooy jamono boobu li jëkk am mooy ngir nga dem da am autorisation da nga fay lempo te doo fay lamp benn at da nga fay ñaari at lempo ba na présenté li ngay yónnee ñiy dox wala dañuy war ñi leen di accompagner lépp gaaral ko door a dem gis ngeen ndànd euh, Cheikh Isa da daan wut gaal yoo xam ne day wut ay gàtt defar ko nii mis yu xewee ni nga xam ne day mel ni niñ koy defaree ba mu baax ñu def ko ci ay gaal wut ay piis perkal ëmbe ko takk di dem ba Thièyeen nga xam dañuy rombante ñiy dem di yóbbu ay hadaaya waxtu nekk fu sëñ Tuubaa nekk mu fekk fa waxuma la njaareem waxuma la feneen waaye fu sëñ bi mën a nekk rek addiyee Cheikh Issa Diène di ko fekk ca ca béréb yooye loolu ko nekk taxawaay boo xam ne jëf ju nekk da koy jëf te bokk na ci lu mu doon jëwri nit jëfam na mu cay jiitoo ci digganteem ak Serigne Touba ci ay melo waaye dundin woowu mu doon dundit nag moo tax boo demee ci biir ñaata dëkk mu sanc ko yoo xam ne lam ci jublu mooy mën a joxe addi ak mën a defar ay nit ba bi ci ba bi ñu intégré jumaa yi jumaa yi njaareem ji ñetti téeméeri dong ak fukk ak ñett la fa Cheikh Issa Diène andi te ñaar téeméeri booba ku ne wàcc la ba am ngërëm ñi ci des nekk ci daara nekk daara dongoy laxasaay te jamono jooju yaakaar naa waxuma la ñetti téeméeri dong mais boo demoon tey ci archive borom xam-xam yaa ngi fi xam nañu ne bi ñuy xool communes yi bu ñu cité léegi la mbooloo bari waaye am na ñoo xam ne ñaar wala ñett ñoo daan nekk même dafa am loo xam ne sax tisaaroo wutoon tisaaroo wutoon ci jëmmi eh, ak murit ba yaatu ba nit mën a dajale lu tol noonu te gis nga ne bi ñu ubbi jumaay njaareem ji rek ñetti téeméer ak fukk ñett Cheikh Issa Diène andi na ko fa ci ci ay donga te jëf yi mu daan jëf it mu daan taxawee ci position bi mu amaat yeneen jagle ci yoo xam ne it bokk na ci bi jumaay njaareem ji noppee tam bëggoon a wut mburngal moo xam ne sëñ bi da ciy jaar di ñëw ci jàkka ji nga xam ne ci jumaa ji ngir bañ sonal ñiy sonle ak laajkat yi lu ko sëñ Tuubaa waxoon xaju fi xaju fi tabax ko sa kër bu noppee danaa fa ñëw Cheikh Issa Dieng gis nga ni mu gëmee sëñ Tuubaa wóolu ko lu mu wax dane ba mu ko tàmbalee ndànd sëñ bi ñibbi Tuubaa dane bu waxoon waccit yàlla for ko kon damay wéyal li may def damay wéyal li may def kon loolu mooy pas-pas bu dëgër boobu waaye li gën a yéeme nee na bi kër ga noppee nga xam ne bu fi sëñ Tuubaa nekkoon ci Zahir Cheikh Issa day dem jébbali ji caabi yi nee na guddi googu kër gi noppee moo ko sëriñ Tuubaa ñoo bokk fanaan ci kër googu waaye nee na bokk na ci li ko sëñ Tuubaa wax na ko ak Issa nee na keroog la ko sëñ Tuubaa li tàmbalee fii ba lay xew ëllëg lépp suñu borom xamal sëñ Tuubaa xamal na ko suñu borom ubbil ko kiiraay yépp ba noppi ne xamal ko ne ko sama yoon wi gëleemu cukkal la àttan na sëf bu ne ba mu desuk nasaraane ngam ne àttan na sëf bu ne ba mu des ak nasaraane loolu tax mag ñi nanguloon ko melokaan yooyu ko yàlla jàng boo tax Cheikh Ibrahima Diop ci wax wax ne amatuma misra yitte amatuma faas yitte léegi maa nga ca doomi maam Mariama ja ca taggaar ndax léegi loo am ci yitte di ko bëgg boo demee ca moom fekk ko fa ci nungoo joxe alal daal di ci wax ci biir wayew na daal na ci maanaam bu dee ci jëmmi tërbiye de moom làmmoo na ci ay secret ki mbóot yoo xam ne nee na kenn amu ko mujj nekk alam boo xam ne ku ne xam na kan mooy Cheikh Issa Diène te loolu li ma la wax léegi wane na ko mooy koo xam ne ay mbooloo nga defar ci ay seex yoo xam ne kenn ku ci nekk tey mën naa atte jamono ci cër bu réy mu am te te moo tax li sëñ Tuubaa di wax ci Masaalikul naan di wax ne awliyaa ay zeylu lañ nga xam ne ay mbicc lañ ci dëggal wilaaya ak dëggal dëgg-dëgg yonent yi liñ doon awliyaa yi ñoo koy feeñal sëñ Tuubaa li def ñii mu branche la ci ñoom tey bu nee la Cheikh Issa Diène Cheikhub Serigne Touba la nga mën a wëraat lu mat fanweer wala ñaar fukk ak nangam yoo xam ne ku ci nekk mbooloo nga lay topp nga di leen tërbiyee di leen won suñu borom di leen eggale ñu ne ku ko defal nga ne Cheikh Issa Diène kon waxuma la ngay nungu mbirum Serigne Touba waaye danga naan Cheikh Issa jenn mii rek amul morom kon ñoo ñu zeylu lañ ci dëggal mbirum Serigne Touba tey kàngam yoo xam ne ni du jeex yoo xam ne Cheikh Issa Diène defar na ci kanam Serigne Touba loolu it melokaan la yoo xam ne ay jëf la ca bokk na ci it borom xam la liy wane xam-xam bi mooy sëñ Mor Kayre borom xam-xam la ci mag yi sëñ Tuubaa yi la bokk ba muy kañ Seex dana ko xat xusta ilman làmboo nga xam-xam waxun man am su ma maarifa xam nga nit mën naa am elmu te du am maarifa nee na ko nag yow xam yàlla ak dëgg-dëgg la ñuy tudde xam-xam nga ko xat xusta ilman waxun man su ma maarifa yow am nga xam nga te daawoo jayoo ko jayu loolu nag moo ci gën a yéeme mooy li Seex di bari bari xam-xam li muy bari bari li muy xam-xam yàlla li muy bari bari baatin li muy bari bari wërsëg nee na ko daawoo jayu dawoo jayee waaye it dawoo jayu kon da ca caa boole woon ak taalibe bi gu dëgg gu sax goo xam ne moo nekkoon ci yow Cheikh Issa Diène te loolu feeñ na ci biir ay jëfam li sëñ Moussa Ka di wax ne ku lii demal lagal Issa di mbër moo mënu gan xam ne kon li tax mu am yooyu cër yu rëy mooy ñaag ak ñaax gi ko suñ Tuubaa ci cër yu yoo xam daf ko koo jagleel kon loolu jagleel la goo xam ne am na ko noonu la ko njaboot sëñ Tuubaa gi it fonke doy na rek Cheikh Mahamadul Fadal borom weer wi sëriñ Fadilu ku ne xam cër bi mu joxoon Cheikh Issa Diène am na lettre boo xam ne ba mu koy bind Cheikh Issa Diène dane ko duma dugg walla ma génn ci na mbir lu dul dama ciy diisoo ak yow lu tax nag iqtidaan bi Cheikh dama ciy roy nag Serigne Touba kon da ci déggee ne Serigne Touba daana diisoo ak Cheikh Issa Diène ndax ndax dane ko sëñ Fall dane ko duma dugg ci benn mbir wala ma génn te lu dul ne damaa diisoo yow kon loolu tegtal la ci bokk na ci it euh, te gisaat naa barki dem bu benn téere buñ bind boo xam ne génne nañ ko ci mooy bi sëñ bii dem sëñ Fallu bi muy dem Ségou lettre bi mu doon bindaat Cheikh Issa Dieng di ko di ko xamal yoon weeg lam cay lam cay wax lépp kon loolu li muy wane rek mooy jëm mi Cheikh Issa jagle yi am defe naa it sëñ fal lu tax mën cee seere lool fii ñu ko denc tey Cheikh Issa Dieng sëñ Fallu waxoon doy na sëkk te foofu jëkk sëñ Fallu di ko wax sëñ Tuubaa moo fi mas a taxaw wax ne fii mooy bunt bi gën a gaaw ci tabbal ab jaam àjjana bunt bi gën a gaaw ci tabbi àjjana mooy fii mooy fii ñu denc Cheikh Issa Diène sëñ Tuubaa ko waxoon bunt bi gën a gaaw ci tabbi àjjana mooy fii Cheikh Issa Diène wàcc ñu denc ko fa sëñ Fallu wax ne ku wàccati nañ la fa jaarale waajal la saa baay Cheikh Issa dana la taxawu dana la teral dana la dalal door la woon sëñ bi kon loolu loolu kon wane na wane na euh, euh, Cheikh Issa Diène radiyallahu taala anhu ci cër yu rëy yooyu ko yàlla jagleel ak ni mel ku ni wax Cheikh Abdou Karim Touré ci magi sëñ Tuubaa yi la bokk ku yéeme la mas naa wax ju dafa mas a toog ba yàgg mu dégg am riir mu bari mu ne riir moomu xanaa jinne yi Cheikh Issa jennee daal na Cheikh Issa de tawfiix ko yàlla defal mooy benn taalibe benn taalibeem bu ne moo xam muy taalibeeb jinne wala taalibeeb murit bu ko yaakaar mën naa am yaari këri àjjana Cheikh Issa jenn du jeexal nga ne mën naa am kenn ku ci mën naa am ñaari këri àjjana dox Issa jenn jeexal kon ay njënni la ay njëndi la moo tax sëñ ma paati si la diiwaan daana wax ne man de li ma sëñ Tuubaa defal ci ay jinne ak Cheikh Issa Dieng la mu ko defal bu nu santoon ub liggéey kenn ñëwut mu faju te defe naa ko xam Cheikh Issa xam nga ne loolu wane na ko xam-xam boobu it li waxal boppam doy na euh, moo waxal boppam ne li ma xam ci alxuraan xam ko ci tabax dana fuus ndax kenn du ko laaj kon kon bu doon luy prime la mel na ne day primé te loolu jumaay njëriñ ji wane na ko ci jëf ji waaye li mu am ci xam-xam loolu it feeñ na ci kon mel na ni euh, li tax ñu indi parti boobu waxtu wi xat euh, bokk yi doon sàkkuwaat ñu indi ab gën a fàttaliwaat na ci euh, maam Cheikh Issa Diène moo waral ñu indi waxtaan yi foofu kon noo ngi leen di jëfal bu baax yéen waa jamaaya bi ci taxawaay bu am solo bi ngeen def waxuma dundalaat gis nga tedd nga al jaddu bil jidd wal xirmaani fil kasal fansabtu sab an xaribin gaayat al amal wa shimbura al maali fi maafiliha gis nga tedd nga yemul rek ci wax ne diwa moom a jur tedd nga ci jëf lay feeñe fi ne tey bu Cheikh Issa Diène defe naa at yi ngeen tàmbali def daje bi ngërëmul sëñ Tuubaa la ko sëñ Tuubaa gërëm joué waat ngeen ci leneen ndax xam na am na ko xamutoon dëgg dëgg dayoo Cheikh Issa Diène ci xam-xam wala ci pas-pas wala ci jëf waaye feeñee ñi ci biir taw tawdeex wa nasr li injazati cheikh isa jenn bi wonewaat na loolu tey niveau bi yàlla jox cheikh isa jenn kon lii mooy donn ak dundal li fi mag yi bàyyi woon al al majd bil jidd laa bi jaddi ka gën a doon mag ponkal bu doonee sa maam te nga yaafus danga nga suul ay jëfam du feeñ moo tax dañuy wax ne tedd nga ci yaafus lay tàmbalee waaye ci ci jàmbaar lay tàmbalee waaye ci yaafus lay jeexe maanaam nit day dikk fekk fi ay néeg néegi ñax fekk fi ay sareet di góor góorgóorlu di góor góorlu ba tabax ay sëto waaye ñëy ñëw bu ñu doonee ñu bàyyi ko dañ naan lépp am na fi rek lépp am na fi ñu nag mooy tax ñu dem ba delluwaat ca ca ginnaaw kon waa kër Cheikh Issa Diène li ñu def bokk yi ni ñuy dundalee li ñuy dundalee bokk gi gis ngeen daaw sëñ Balla Fally ren jii ñu jël ñaari sang yu baax yi mooy Cheikh Sidiel Muxtaar maam Cheikh Anta Gaawaan ak Serigne Afia Mbacké te ku ne xam na seen seen seen seen seen ak seen i diggante damay wax ne loolu la bés bi sëñ Tuubaa waxee sëñ Saxiit Mbakke wax maam Cerno na ko Saxiit mi nañ ko dencal wutal ko mu dëkk kum dëkkoo maam Cerno dana man ne li ma xam ci sëñ Saxiit mii loolu doo xam naa dana naqaree wutal kum dëkkool ndax dëddu gi àdduna bañ ko waxee maam Cheikh Anta Gaawaan maam Cheikh Anta Gaawaan dane li ma ci xam de mooy Saxiit du jëlee dara ci kër sañ Tuubaa di ko yóbbu ci kër soxna si Cheikh Issa Diène mii moo jóg taxaw wax ne danaa yor këram yor sama kër sëñ Saxiit Mbakke Cheikh Issa Diène moo engagé ne danaa boole joxe sama dépense kër ba noppi di joxe dépense Serigne Saxiit Mbakke këram noonu la meloon ci relation yu mat yu mu am te damay wax ne maam Cheikh Anta Gaawaan ñetti wax a ngi nii Serigne Moussa ko wax jar na xam liy jariñ nit sëñ Touba mas naa dikkal Serigne bi ne ko ñaas ma sa bambara la xoolal li mu bu doon ci deret lan la doon ci sëñ Touba soxna lan la ci Serigne Touba ñoo bokk sëñ moo ranta waaye ñëw na sëñ Touba ñaas sa bambara la jaay ma sa jaam la sëf ma sa mbaam la waras na cee jàngee na ko lii tax a jariñ jëriñu Serigne Touba mooy ak taalibe nu nit di jege ma sëñ tubaa rek maam Cheikh Anta Gaaw jegee na ko Serigne Touba te ñëw na na ko sëfu ma ñaas ma jaay ma moo tax Serigne Touba mos ci bopp bi na ko Cheikh mu ne ko Mbakke mu ne ko yàlla jox na ma lépp te doo leen sooy. doy na it ci daraja mënta weesu mu jóge fii dem Gabon fekk fu Serigne Touba Serigne Touba na ko Cheikh yonent bee ma wax ne yaa ngi ñëw te Rasulullah nee na Cheikh nga yor sama sayir mu yor sama batin kon wax Serigne Touba na ko Cheikh Anta yor si sayir mu loolu doy na ca rakkam jii di imaam nga xam ne sëriñ Afiye doy na ci xam-xam ak rafetu juddu jaay léppam jëlee ko sëriñ Tuubaa kon li ngeen di def daal jëf la ju rafet noo ngi leen ci sant bu baax di jéggulu bokk yi ci waxtaan wi lu ci dëng nu jéggulu ko lu ci jub nu sante ko yàlla xam ne lii mooy li mat a sàmm lii mooy li mat a dundal te génne ko te wone ko te jàngale ko adduna mën koo jariñoo maanaam baatu ak cheikh dañ koy fooyee fi ni cheikh mooy ngërëmul yàlla ku sëñ Tuubaa gërëm léegi Gana Messere bu waxtaanee am mbooloo rek ñaar topp ko mu beru da ngay jiiteeb daayira ba yàgg nga beru fi ñin mënoon a ci biir yoon wi ñuy yëngal ak yëggutu ki bagage te kenn xamul fu mu branché kenn xamul nu mu toll loolu moo mat a jëkk lijjanti ci caaxaan yi ñu bëgg a bàyyi muy wëndeelu ku mu neex nga beru benn sa maam jëwri ni daayira doon doon adduna neex nga kolu wala mu doonoon jëwri ni toolub àllarba adduna neex mu kolu bëgg mbooloo jëru dajale nit ñi naan leen ay seex ngeen te sëñ Tuubaa gërëmu leen tampoob sëriñ kenn du ko fals ginnaaw ab état dong boo falsé ab tampom foo ko yóbbu ñu ne la dañ lay tëj ndax infraction nga def ñu ngi falsi nag tàmpob Sëriñ Tuubaa bi alal jër te jël kenn di ko jiital naan ko ab seex nga ngërëmul Sëriñ Tuubaa jël ab seex dafay seex lu bon ngir yàlla te bu meree suuxal meram ngir yëlla la Sëriñ Tuubaa ma Seex Musaa Ka wax seex du caaxaan Sëriñ Tuubaa ba benn naar ne acheikh ñetti baatay daje ci moom shaakirul niami la xaaifun makir la ya'muru bil ma'ruf wa yanha anil munkar léegi bët bu set télévision yi yaatu na rajo yi yaatu na communication yaatu na internet bi yaatu na bët bu set nga gis ku génn jël kolam teg ci baatam xamut fu mu jëm bay jëmale kenn fenn te Serigne Touba moo wax ne wa man tawajjahat annaasu ilayhi wa tawajjahu ila nafsihi aw ila anfusihim dafahum rabbu naas ila naari lati waqudaha naasu war xijaara ku nit ñu toog xamoo foo leen jëme xamoo foo jëm ñoom xamoo foo jëm xamoo foo leen jëme yàlla dana leen boole tabbal sawara mag ñi li ñu doon liggéey Serigne Touba jox leen ko du ay caaxaan gis nga ba doon ay watee kese képp wala lu ligg si képp wala coowul kese képp wala ay jasineer képp jëlul topp Serigne Touba mag ñi am na ci ñoo amutoon ñaari néeg am na ñoo am na ci xam ne amuñoon nangam waaye ngërëmul yàlla lañ amoon ak jubóog seen borom te gis nga nit mën naa bañ a mooy yàlla ci jigéen mën naa bañ a naan sàngara te bu ñaanee yàlla du ko nangu lu tax day lekk lu araam kuy def nag loo jot ñot di lekk ngir bëgg dund ceex gi nañ ko seetaat te génne ci li ci bokkul ak ñi ci bokkul gis nga ni nu ruure yëf yi di seet mbindum sëñ Touba mi xasida yi ci bokk yi ci bokkut ak yin ci boole yu wér ak yu noonu la ñu war a taxawee ci mbirum seex yi seetaat ko bu baax a baax a baax a baax jamono jaxasoo na lu xammeetoo léegi ku ne jël sa kol teg sa baat rek di wéy sama maam te mënoo caa teg